allo salaamaaleykum yéen euh, waa mbokki communauté sénégalaise mën la seen xarit seen frère euh, Mamadou Diop président communauté sénégalaise de Pontedera ma leen di nuyu di leen ziar di nuyu waa groupe de presse euh, tout tànki Touba Toscana di leen sant di leen gërëm di leen jaajëfal ci liggéey bu nga xam ne bu rafet bi ñuy def nii di ñëw tey nag ci information boo xam ne. dafa jot nag ñu waxtaan ci suñu biir dafa jot aussi ñu wax leen li nga xam ne mooy réalité bi fi nekk weesuwul nag lu dul ñu indi leen ajournement wala indi leen ay tomb ci li nga xam ne mooy feebaru coronavirus bi ndaxte actuellement nii ñu xam ko ñu ñàkk koo xam am na benn minorité parce que du ma wax ñëpp du ma condamner toute la communauté sénégalaise de pont Pontedera mais am na ci benn minorité ay benn benn nit yoo xam ne euh, corona bi dal na leen ñu testé leen positif ñu daal di làqatu ñii teg seen téléphone ñii bañ a wuy ji uslu walla hôpital ñu leen ñu war leen saytu ñu war leen mettre en quarantaine ñii tamit dañoo sax faw daaw léegi nag loolu laa bëggoon tey ñu indi ci ay leeral loo leeral yoo xam ne nit ñi war nañu am beneen comportement boo xam ne bu gën a responsable boo xam ne du lii waaw ndaxte feebar bi du feebar boo xam ne dañ ko war a làq du feebar boo xam ne dañ cee war a nëbb du feebar boo xam ne tamit daf lay lor wala mu indil la yenn gàllankoor yi feebar la comme feebar yëpp am na yeneen feebar yu ko gën a garaaw ngi ci dëkk bi di faat di rey le double que li di rey ñu bàyyi yooyu donc corona bi du loo xam ne nit ki war na koo am ba pare nëbb ko di lor ay mbokkam yi mu dëkkal di lor sa dëkkandoo tubaab yi nga xam ne moom lañ nekkal fii ndaxte dama leen koy gën a leeralaat mu leer nañ am na ci ñoo xam ne actuellement nii fii ci dëkk bi am nañ coronavirus bi di dox ci dëkk bi di dem ci boutique yi di dem ci supermercato yi di dem ci banque yi di dem ci hôpital yi di dem tamit ci suuf fi Sénégal yi di dajaloo fépp di leen wàll feebar bi te ñoom seen bopp ñoom xam nañ ko mais kenn ñeen ñi xamuñ ko donc ñooñu ngir laay war a suul nañ amaat seen conscience ñu waxtaan ak seen xel te xam ne li ñuy def nii ñi ngi lor toute une communauté non seulement communauté sénégalaise mais ñi ngi lor tamit ñi ñu dëkkal ñëpp te loolu àq te képp kuy jullit danga amee ameel àq sa moroom mu nga dëkkal

ñu waxtaan suñu biir waxtaan ak njaboot gi waxtaan ak xarit bi waxtaan ak famille bi ne leen nañu jóg farlu yow sa bopp sax da war a def sax test pour xool ndax am nga ko wala amoo ko mais rawatina nag yow nga dem def tes ñu wax na da ngaa am yow doomu jàngoro ji demal toog sa kër nga ubbi sa téléphone ñu woo la wax la nañ lay faje ak nañ lay suivre su fekkee dañ laa war a yóbbu quarantaine yóbbu la quarantaine mais nga bañ lànq tëj sa téléphone. kenn mënu laa repérer kenn mënu laa gis ku la woo doo ko wuyu loolu am na nag si dëkk bi nañ ko xam bu baax te du benn cas du ñaari cas ay cas yu bari lañ ñu ngi ci dëkk bi di doxantu di dox ci biir dëkk bi di eh, élargir di di di tasaare doomu jàngoro ji bi doomu jàngoro bi te kenn xamu ko ñun nag en tant que responsable li ñu ci jotalee mooy usul daf ñuy woo autorité commune bi woo

buñ ko sax jéem a deli c' est un délit pénal na leer nañ am nga ci ay daamu tudd kaso de euh, benn at bu juróomi at loolu nag ñëpp xam ñu nag euh, wax dëgg yàlla am nañ tamit euh, kers lool di représenter communauté bi ñu ñuy woo naan yëf yi kat yéen seen communauté nii la demee te mënoo ñu wan la leer nañ mënoo koo wedd mënoo cee teg baat lu dul di naka nakal waa moom kay après dinaa jéem xool ak nu may collaborer pour gaa yeeg yooyu da ngay dem ba da ngay rus da ngay rus te loolu loo ko teg du communauté bi yëpp nag ma gën a leeral ay benn benn nit la donc ñu ngi leen di ñaan ngeen xam ni waa usb ñi nga xam ne ñoo yore ñooy seet wér-gu-yaram bi fii ak administration communale bëgg ñu lul rek dëkk bi nekk en sécurité seetuñu kenn pour jàppale seetuñu kenn pour sa séjour seetuñu kenn pour fekk da ngaa nekk kanam ne si ne wala dama non non li leen amoon importance mooy da ngaa nekk ci biir yi nit nekk ci biir société soo yoree doomu jàngoro bi dañ koy wàll ñeneen ñi donc ñu ne nañ la isolé pour doomu jàngoro bi bañ a wasaaroo ci biir dëkk bi loolu kese ça n'a rien à voir ak ay clandestine ay nangu këyit ak yooyu amul këyit non situation boo mënti toll dañ la saytu. mettre la en quarantaine mettre la en sécurité amul benn benn benn daan bi ci am dara lu lu lu danger nekk ci donc maa leen di suñu borom ñu jéem a respecté moom tamit yow sa communauté respecté tamit ñoom nañuy doxale kilifa boo ci gis muy génn ci tali bi mu ngi sol masque pourquoi nag ñu war a nekk exception. maa ngi leen di ñaam daal ngeen jàppale ñu ci loolu ñi nga xam ne dañ koo yore ñu jéem a signalé ñu dem quarantaine yaakaar naa loolu daal moo ko fi dindi mais sinon rek day continuer di law te loolu suñu responsabilité ñun ñëpp jërë ngeen jëf